asalaamaaleykum asalaamaaleykum na woon fa woon fi ngeen ñu doon nuyoo ñu nit foofu lañ doon doon fay amaana sax ñun ñu nuyu leen ngeen fay ñu fa muy ci Dakar Net mooy sit bu baax bi nga xamante ni fu mu jotee rek ñëpp xaar ko ci émission bu mag bi di Top Actu yi ngeen ci ànd ak votre serviteur Davida ma ci nag fégoo ak moom mi nga xamante ni mooy leen Tousabe Ndeya tey mu def lu rafet ma naan ko ay ci loo ne. <laughs> maa ngi nii rek. yaa ngi am jàmm. maa ngi si jàmm bu baax waa gis nga. gën a yi tey dama waa del wax loolu ndax sañse sama man mën la damaa uh-huh. gën a sañseti. macha allah <laughs> hmm? kon waxal gaa yi foo nekkoon. gis nga di leen nuyu yéen mbokk internet yu Dakar Net di leen safoo di leen wax ni émission bu mag bi. ërëm jotati na moom mi nga xam ne moo leen di digtal lépp luy xibaar yi daloo ci semaine bi yépp uh-huh. tey lañ leen leen koy jukkil faram fàcceel leen ko uh-huh. Euh, Daouda. dañuy dox nag jëm ci koor gi. tey moo waral ma def tenue bi nii rek mu xaw a simple. ah ku fa jaar. Xadi. Euh, Xadi sama jean d'amour moom moo jaar fii nii. waaw Xadi affaire bi rafet na. <laughs> kon nag xam naa ne man bu dee am na yu góor yu jàllaabe. ah après nga wutal ñu ci. waaw xam naa noonu lay demee. waaw noonu lay demee yow ak mhm. madame Kane après dinaa leen si wutal. ku nekk benn waaw ana lu gën a fës. Euh, lu gën a fës nag tey bokk na ci commission d' enquête. Mhm. ki la di Assane Diome euh, mhm. Ndiaye. moom mi kan ma ngay wane ak meram ci décision bi nga xamante ne ni jël nañ ko. jëmale ci. wàllu ñaaw te fii fi amoon récemment. noonu la amee ñoom ñaar la ñu jël daal di leen teg yëkkati seen i daraja dóor seen i photo mu di kii di maître Sidiki bi nga xamante ni moom ku ci ne xam na ni mooy jëwriñ mu feggoo nag ki nga xamante ni ba tey maître la moom moo di Assane Diomaye ci li nga xamante ni nag moo di ab commission d'enquête bi état bi daal di jëloon taxawal ko ngir lépp loo xamante ni jot na fi am muy ay émeutes ku ci ne xam na ni am na ci période bi nga xamante ni ci mois de mars bi tàngoon na lool am nag ay dégâts yu ci am ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan ci kawit loolu amnistie daal di génn woon nag. ab enquête bi nga xamante ni moo jëmoon ci deux mille bi ak deux mille vingt un bi ci ñi ci joto loru ci ay yàqu-yàqu waaye nag ci loolu état bi àndu ci ndax état bi li mu gis mooy liñ leen indil ci li nga xamante ni tey ji noonu la mbir amee moom la mu gis mooy ay faux document la ci lañ leen à peu près que ni dégâts yooyu ñoo ci am ci kaw loolu ñoom nag ñu daal amal benn commission d'enquête ngir mën a xool naka lay ñuy def ba daal di xam li tukkee ci loolu noonu nga xamante ni waa Amnesty daal di nañu ko indi. loolu nag la kii di Assane Dioma Ndiaye daal di gis ñaawlu ko nee na ci réew mi nga xamante ni dañuy wax naan démocratie la réew mi nga xamante ni dañoo ne justice bi dina def liggéeyam te ñun ñëpp ñu gis ci teg suñu bët xam ni que ni immédiat yooyu yëpp ni ñu ko waxee rek noonu la ndax vidéo yaa ngi fi. image yaa ngi fii loolu la avocat bi daal di gis daal di ne nag lu ruslu la bu ñu demee ba gis ni maanaam état wu Sénégal mu ngi bëgg a teg ab commission ngir ñu saytu li fi jot am te ñëpp gis ko rawatina procureur mi nga xamante ni sax ci boppam dossiers yi xam na na mu amee ndax lan bu dee ay vidéo la yor na ko bu dee ay certificat la yooyu yëpp luy furndeel ni que ni lii ak lii jot na fi am ci ay yàqu-yàqute ak ay gaañu gaañu ba ci ñi nga xamante ni sax dañ sa ñàkk seen bakkan moom procureur xam na ko kon nag gàcce la ci mim réew gàcce la ci gouvernement bu Sénégal su demee ba nga xamante ni ma ngay taxawlaat beneen commission day furndeel ni que. justice bi bu dee tëdd na njaaxaanaa it joxuñu ko li nga xamante ne mooy gëddëm loolu daal avocat bi daal di xamle. foofu nga daanelee sax mhm. foofu laay ñëwee mhm. mooy que ni justice sénégalaise justice sénégal bi mhm. tëddewul njaaxaanaay leneen li ci dolli ko tamit mooy euh, lii di àq ak yelleef doomu aadama yi dañ koy salfaañe en fait ñu wax ko tëddee mais loolu lañu gis loolu la ñu gis Davida. vraiment justice bi war na mën a tey prendre fait et cause pour la masse. macha allah jàppale ki nga xamante ni moom mooy citoyen yi. Mm-hmm. leneen tamit li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci Sidiki Kaba. Mm-hmm. moom yeekat ma ngay recadrer kii di Seydi Gassama. waaw comme na nga ko waxee ci àq ak yeleef moo waral tey ji bu daal di def li nga xamante ni moom moo di recadre boobu jëmale ko ci ki nga xamante ni tey ji ci amnistie bi la nekk muy Sidi Gassama ginnaaw bi nga xamante ni Sidi Gassama daal di ne xamal ni maanaam fii ci mim réew. ak ak yeleef doome aadama bi dañu ko salfaañe loolu la ko Sidiki Kaba daal di xamal ne ko amul benn ak boo xamante dañu ko bafuwee loolu doon loo xamante ne nag xaw na laalante ci seen biir moom mi nga xamante ni kat moom ministère de la euh, force armée bi nga xamante ni tey jii moom lañ ko dénk loolu la daal di gis ne kat ki nga xamante ne mooy Seydi Gassama la mu wax amul mu dellu ci wax ci daal di ne gis nañ ñi sax Sénégal pour ñu am ab marche jëmale ko ci lu leen yi ak lu leen neex. loolu nguur gi fi nekk dañ leen koy tere mu daal di koy bañ ba lamte daal di ko ne 2000 demandes yi nga xamante ni moo soxaloon ku ci nekk def sa dox ñaxtu nangul nañ leen ko bu doon 100 pour cent la gis na ni 4 pour cent yi rek la ñu nangul ñoom la ñu te li tax ñu def ko mooy fa ñu war a jaar jaaruñu fa di ay kàddu yoo xamante ni moom mii di Sidiki Kaba moo ko yëkkati dal di koy teg ci ndoddal Seydou Gassama ginnaaw li nga xamante ni ay kàddu la bu jógee ci Sidi Gassama daal di daal ci état bu leneen li jógee ci kii tukkee ci Espagne va rapatrier quatre cents Sénégalais non comme na nga ko waxee yàggul bu ñu gisee kii di ministre wu Espagne bi daal di fiy dugg li nga xamante ni lay wuyoo mu di Pedro Sanchez moom nag gis na ni sénégalais yi bari na bu ñuy dem ci biir Espagne du ñu jaar ca yoon bu baax ñoom dañuy préféré dugg ci pirogue yi wala sax ñu jaaraat ci beneen voie looloo tax mu ñëw fii mais li nga xamante ni moo ko indi woon fii ci mim réew ba jàkkaarloo ak président Macky Sall mooy naka la ñuy def ba daal di répatrier ñi nga xamante ni mooy doomu sénégalais yi toll ci quatre cent personnes waaye li ci gën a doy waar xamal na ni kat. seen biir waxtaan ak diisoo ak président Macky Sall moom espagnol bi di seen premier ministre bi di wuyoo ci turu Pedro Sánchez nee na kat président Macky Sall mi moo yombal mbir mi ndax bi ñu toogee ñu waxtaan juboo am na ca ba ñu nangu ñu daal di répatrier doomu sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci doon Espagne te jaar ci yoonu euh, géej gi. Euh, leneen lu gën a fës ci xibaar yi tamit bokk na ci trafic de passeport. loolu ca diwaanu euh, Tambacounda la daal di xewee eh, bu ñu gisee li nga xamante ni moom la ñu ko waxee foofu mu amee nag dañu gis ni ab maître coranique moom moo def li ni mel ndax dafa daal di jël beneen profil bu dul profilu jàngalekat maanaam ab policier daal la soppeeku ngir lan jël ay passeport yombal ko ay étranger ci langue bu ñu bugg a bokk wala ci beneen askan bu ñu bokk loolu la ko daal di tegee loxo moom mi nga xamante ne nag moo di maître coran boobu li nga xamante ni la doon am ci bu jëlee euh, passeport bi yombal ko moo xam ki jóge Guinée moo xam ki jóge beneen dëkk deux cent cinquante mille la doon am ci commission bu ci nekk loola tax ñu daal di koy teg loxo leneen li nga xamante ni tamit gis nañ ko ci mooy yemalu woon ci mbirum jàngale bi rek mais dafa déguisé woon en tant que un policier loolu tax mu doon gën a yombal mbir mi nag loolu ma nga amee foofu ca dàkk ñaari taal ci diwaanu Dakar gii fii. Euh, leneen li gën a fës ci xibaar yi Davida bokk na ci tiis ak naxar mu di décès di doyen. Euh, des juges Samba Sall. Samba Sall ginnaaw bi nga xamante ni wuy ji suñu borom kii di président Macky Sall daal di koy rendre ab hommage bu mag a mag daal di koy Twitter la mu gis mooy kii di Samba Sall nit ku baax la woon waaye nit koo xamante ni moom bi mu déggee sax euh, nouvelle bu triste bi moom président Macky Sall am na lu ko metti waaye président Macky Sall di wax nii nit la bu fonkoon liggéeyam nit la boo xamante ni liggéeyam. maanaam da ko doon jox àq ba mu ba mu ba mu doy comme ni ñu koy waxee loolu nag moom lay président Macky Sall di di firndeel jëmale ko ci ki nga xamante mooy aji ki dem ki waaye tamit fii léegi boobu président Macky Sall it mi ngi koy masawu di masawu également ñi nga xamante ni ñoom la bokkoon foofu nga xamante ni moom moo di ci mbirum yoon. Euh, Davida leneen li gën a fës bokk na ginnaaw jongante bi doxoon keroog. diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers kii di Gaston di mer na ca mer moo xam ne maa la DMC. moom la ñuy wax la Don King Gaston mi jëloon ñaari mbir ñi nga xamante ni tey ay mbir lañ koy wax ndax liñ doon xaar gisuñu si dara amateur yi mer ba futt la def mais moom photo bi sax boo leen ko gisee xam ngeen ni kontaanoo ci Lac ak Eumeu ndax bu ñu demee ba ñu jël xaalis gu bari jox leen ko li ñu doon xaar ci ñoom mooy ab combat boo xamante ni lu neex lay jeexee waaye moom li mu gis moom Gaston xamal na ni. ñaar ñi bu leen mënoon a jàpp sax dóor leen dina ko def ndax daa jël ay xaalisam yu bari daal di koy finance ñu ay dizaine de millions mais ñaar ñi jour boobu dañ ko rusloo bëreewuñu kenn kontaanul saful kaani saful xorom saful géej gi saful yéet moom daal loolu la gën a fësal waaye tamit bu doon sax tey jii lu ñu mën a aare faire la moom Gaston sax dem na dem na ba noonu du ko du ko du ko tëggaat ndax li mu doon xaar amateur yi doon ko xaar gisul loolu maanaam làmb ji daal ndeya vraiment parce que dama ne bërëb bu keeg mbaam. ah bërëb bu keeg mbaam la yow toog nañ ay mois. Mm-hmm. confiné wu kenn gisul combat kenn déggul combat. Mm-hmm. ñu dem teg ñaari champion ñoo xamante ni kenn dootul naa table seen xariñ ci ci làmb. Mm-hmm. ñu def benn tàkkusaan tàkkusaan boo xamante ni mel na ay ay mbër yu ndaw ñuy jàng bëre. ba affaire bi terminé ci décision arbitrale loolu tamit nekk loo xamante ni nii lu nice la. man nag xam nga la moom ci gënoon a jaaxal. mooy ci signature contrat yëpp dama ci doon gis ki nga xamante mooy Lac dafa ne di ngeen gisaat beneen delluwaat ne. Mhm. ñamoon nañ jàpp ni xale laa woon dëgg la xale laa woon mais léegi màgg naa. Mhm. mais ma jàppoon ni si sama analise bu gàtt bu doon làkk dafa dafa màgg ki mu doon ki mu war a bëreel kon moom bu dee li mu màgg màgg kii gën na kaa màgg ba toog di koy xaar. Mhm. ndax loolu lañ fi gis. làkk bi ñu gis boo bokkut ak làkk boo xamante ni la mu waxoon ca signature contrat bi moom la appliqué làkk bu ñu gis xam nga mooy ban làkk mooy bu doon def nii. di sànnante ay ay loxo rek. dëgg bii moom dafa mel ni day bëgg a wax waroon nañ taxaw bëre bëre bi jeex ci anam ñu mu gën a neexee mais lii moom du combat. franchement lii taxuloon ñuy ñuy tëgg combat bi. Mhm. waaw amoon leneen li gën a fës. leneen li gën a fës tamit bokk ci un charlatan poignarde à mort son frère. nañ ko waxee loolu la amee mu doon lu tiis loo xamante ni sax dama ne ah. Euh, ku mu tiitalul ñu bëri war nañoo tiit ci seen bopp ca Parcelles Assainies la xewee maanaam koo xamante ni charlatan la ñu nga xamante ni la def muy jéey ju ñaaw bu dox ci diggante ak rakam euh, la tax mu am ak na mu amee lépp daal nañu koy wax ci yéenekaay bi gis nañ que ni moom la charlatan bi coow gi leen boole bokk na ci mbirum caabi xam naa ne nag ay caabi jox ma caabi ju ma la jox caabi looloo tax mu daal di koy poignardé ba jamono ji nga xamante ni la ñuy wax ak yéen ki nga xamante ni mooy rakkam dañu poignardé ji nga xamante ni la ñuy waxee ak yéen ñu ngi koy yóbbu foofu ca hôpital Aristide Le Dantec foofu daal la ñuy jëlee kooram après daal di koy jëbal borom bi mu doon lu mu doon lu. mu doon lu lu metti vraiment mm-hmm. c'est vraiment écœurant. Mm-hmm. nit ñi dañoo war a vraiment seen xol yi ñu koy wàcce parce que genre mel ni nekk na lu ñuy gis fréquemment nit rey na doomam nit rey na baayam nit rey na rey na rey na nekk ay rey yoo xamante ni nii dafa terre à terre vraiment loolu tamit lu metti la ñoo ngi massawu ki nga xamante ni ni moom moo ci ñàkk bakkanam ñoo ngi jaale aussi famille am di ñaan yàlla mu xeppee ci àjjana yi gën a kawe. Mhm. man nag sama jàngat je pense que comme ni ñu koy waxee bu ñu demee ba ñu wax ay saratna di wax ñi nga xam te mooy sëriñu tar yàq yeeg di wax ñema ñem ñem man damay jàpp ni léeg-léeg lu ñu leen di xabtal la ndax xam nga bëgg a def sa bopp sëriñ. Mhm. ak yàlla def la ngay sëriñ. surtout wute la. Mhm. Euh, bari na ci ñu toog si télé bi naan man sëriñ diw sëriñ diw maa dàq defar bayre wala maa dàq defar sangat te moom su doon am na bayre du woote day toog fa mu toog ñu fekk ko fa. Mhm. bu doon ku mën nit lu muy def la je pense que bu tëddee dina xam ana ban jour lay faatu. Mhm. bari na ci ñuy toog di wax daan suba ngay faatu tax ñoom ci seen bopp fàtte nañu ba mu koy wax ni borom bi yor. bakkan bi yor ruu bi moom xam na fan la ak nan la ak naka la ndax damay faral di wax naan suñu borom mooy ki nga xamante ne mooy extraordinaire mm-hmm. yow koo mën a doon da ngay ordinaire ndax yaa ngi am ay partenaire te yàlla amul partenaire benn partenaire la am mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yéen nga xamante ne aussi yéen koy def di wérd ak di def yenn yi ba mu leen di pousser ngeen di dugg ci yenn yi ngir bëgg jël grade boo xamante ne du seen grade boo leen ko bàyyiwul waxuma la euh, waxuma la rey rey rakk waaye di nga rey sa jabar rey say doom ba noppi suul sa yaay ak sa papa <laughs> dafa leer euh, leneen li nga xamante ni nag moom la ñuy tëjee mhm. moom mooy vol de mouton waaw mhm. kii du du Abdou kii Njaga Jóob lay wuyoo moom Njaga Jóob nii la nga xamante ni la ko tëjee jamono ji toll na ci ñaar fukki at ci xar yoo xamante ni ñëpp xam nañ ko ni sàcckatu xar bu mag la foofu nga xamante ni mooy sa séyeen caajaay ñun ñëpp manque nañ xam ni sàcckat bu mag la na mbir ma amee nag bokk na ca oto ba nga xamante ne la jëloon xare yàpp ko ca euh, ci boobu lañ ko jàppee fii ci rond point e MG bi xam naa nag da ko doon dem pour lewetal ko mhm. moom Ndiaga Diop nga xamante ni jamono ji la ñu koy toppee bokk na ci association malfaiteur ak vol en réunion donc d'usage d'armes yooyu yëpp mu jëloon bokk ko boole ko xar yi nga xamante ni jot na ko sàcc moo tax ñu jàppe ko foofu ca rond e lii daal moo tax jamono ji làkk nañ ko euh, jant bi mais li ma ci jaaxal peine bi daa bëri fukki at. fukki at dafa tuuti sax. Hmm. kii c'est c'est pas quelqu'un koo xamante ne ni tamit dañ ko war a bàyyi muy traîner nii rek ci société bi. gisoo loolu waaw parce que li mu def nii dafa ñaaw. Hmm. vol ak ay. utiliser yenn arme blanche mm. ci Sénégal bi ñu nekk nii tamit mm. tu ne trouves pas loolu dafay gën a augmenter li nga xamante ni mooy la sécurité au Sénégal man moom dama jàpp ni xëy na daa bëggoon a anticiper tabaski bi xam nga ni koor gi moom mi ngi nii dalay leer ni kii du woor kii du woor kii jaw kii kay jaw la waroon sant wala sekk sant wala sekk jëf ji mu def nii mm, waaw moom la boole sama yaay sama papa moom xam nga sant war sant Diop kon tàggool ay jëf ji mu def nii mm-hmm. ñaaw na trop tàggool vraiment ñoo ngi gërëm mbokk internet yi nga xamante ni nii Davida saa su nekk ñoo ngi ñuy suivre saa su nekk ñoo ngi topp vraiment amuñu seen fay di remercier nag sama famille bu baax. Mm. ak ki nga xamante ni tey moom moo génn si. waa si tenue bi bu bu fashion bi bu mm. classe bi muy xadi mm. sama cousine. ak bi ma bi madame Tall. Océan de bisous à maa ngi nuyu ñëpp di ñaan nag. Euh, umpale woon ni ñoo ngi dox jëm ci weeru koor bi di ñaan yàlla ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. génn ci ci alhamdulilah mm-hmm. lépp lu luñ ci ñaan yàlla suñu boroom nangu ko def ko ay xéewal tawe kawe suñu njort sotti ko ci askanu Sénégal bi mm-hmm. yépp mbaa da nga woor man damay woor man bokkuma ak cekee leeg jaween nii de man damay woor ah. jeg jongeen dina continuer wala jigéen jongeen loo mm. xam naa nag dañuy bàyyi ba weeru koor bi weesu waaw li ñu koy tëj kon daal bokkatul ci weer koor. ah parce que jonge bi tamit daa am yeneen lu muy àndal. Ah. xam nga rek ndayaa moom de fois day indi wax yoo xamante ni jàpp du du du du du du kii bi du guddi gi yëpp de. bëccëg bi la waaw du guddi yëpp ah. bëccëg bi la mais nag tamit am na ci yoo xamante ni ni hmm. parfois nga wax ci yenn yoo xamante ni ni hmm. kii woor du ànd ak loolu moom faa ma laaj def naa <laughs> ñoo ñoon xam nañ ko yéen ngeen xam ñu ñu xam leen ci lépp loo xamante ni rek mooy seen baax baax ndax yéen ñi ñuy suivre nekk di def seen commentaire ci ginnaaw clavier yi yéen ñu gën a xam gën ñoo maîtriser lu ñuy wax waaye mbégte la ci am saa su ne ñuy lire seen commentaire moo xam bu baax beeg beneen bi lu mu ci mën a doon c'est Sénégal qui gagne ndax yéen ñun ñun ñooy yéen boo leen ñu critiquer moom mooy ñuy avancé loo ñu nit mënuñu leen ignorer ndax ñu ak yéen la ah bu faites partie de nous comme aussi on fait partie de vous mm-hmm. l' international laa koy wax moom mooy Abdou mooy jàpp ci réalisation bi ak Bisou également maa ngi koy big up moom sama ardo nee naa ko dama koy ñaanal tawféex ñaana ko samay waajur waaye tamit ñaanal ko équipe technique Dakarnet yëpp di wax nag naan DG e xoolal tàndarma yi nanga koy indi bu konta tàndarma yi na gaaw fi rek boobu naa leen ba bàyyi <laughs>